parce que vraiment li ñu wax mbir mi dafa am solo responsable yi ñëw nañ waxtaan nañ jox nañ leen information yi jox nañ leen directive bu parti bi léegi nag ñu war a dellu ci base yi pour préparer ni ñu jaayee carte mu nekk nag état bu am solo ci parti démocratique sélé sénégalais parti bu mag boobu nga xam ne moo nekk parti bi gën a mag ci Sénégal aw bi yoon euh, président Ablaye Wade lañ ko nangoo ci lamiñam bi mu ñu mujjee recevoir vente des cartes bi li tubaab di wax c'est irréversible mënuñu cee dellu ginnaaw parce que parti bi dafa bëri ñoo xam ne euh, presque quatre-vingt-seize lañ koy renouveler instance su parti bi diggante bi am na ñu juddu am na ñu fi màgg am na ñoo xam ne nekkatuñ fi kon dañu war a organiser waat parti bi pour def ko benn instrument de travail boo xam ne. moo ñu war a permettre ñu delluwaat ci nguur gi PDS li nit ñi wax waxu ko de PDS li muy wax mooy nan lay def ba delluwaat ci nguur gi kan moom fa war a yóbbu mooy suñ candidat Karim Meïssa Wade kan moo nu war a xàllal yoon wi muy suñu gidd suñu yaakaar metre maître Ablaye Wade ci loolu lan taxaw te incha allah daañu ci dem du yomb nag parce que parti yi fi nekk Sénégal yëpp kenn ñemu fee jaay carte kenn ñemu fee redoubler waaye PDS dafay wóolu boppam ñeme fi mu jëm. incha allah dina metti mais ñu ko réussir ba taxaw parti boo xam ne mooy jàkkaarloog Macky Sall nangu nguur gi ci moom installé suñu candidat Karim Meïssa Wade mu yéeg defaraat Sénégal parce que mooy yaakaaru réew mi loolu moo waraloon suñu daje tey waaw ànd bi moom daanaka am na ñi nga gis nii dañoo ànd de mais dafa am lu ñu boole ñetti lañu wax képp koo xam ne da gëm PDS képp koo xam ne da ngaa gëm Ablaye Wade képp koo xam ne danga am yaakaar ci Karim Wade mën nañoo ànd ak yow li ñu bañ kay mooy nga teg benn tànk peres teg tànk feneen nin ko gisee loolu lan dul nangu mais lii boo ko gisee ni saal bi feese xam nga ne ànd ak booloo moo ko chaque jour mbooloo mi di yokk am na responsable yoo xam ne tey la ñu doog a ñëw permanence kon ñun ci yoonu dëgg bi la nekk yoonu liggéey bi ñuy lancer appel ñëpp koo xam ne daal parti bi nga gëm Ablaye Wade nga gëm Karim Wade nga gëm mën nañoo liggéey xëccoowun pos xëccoowun jiite koo xam ne nag da ngay teg benn tànk fële bu guddee nga waxtaan ak Macky Sall wala nga waxtaan ak Idriss Seck duñ mën a ànd ak loolu la rek mais parti bi nii ñu ko gisee c'est un parti uni un parti fort buñ ko renouveler incha allah dañuy dem jëli nguur gi. aujourd'hui la fédération urbaine de Thiès s'est réunie en assemblée générale à la permanence Boubacar Sall. Il s'agissait tout simplement d'une séance de restitution de la réunion du 16 octobre tenu à la permanence Omar Lamine Badji. Réunion relative au démarrage du processus de la vente des cartes et du renouvellement des instances du parti. Aujourd'hui, nous avons réuni donc la Fédération urbaine de Thiès, qui regroupe l'ensemble des trois sections, Thiès Ouest, Thiès Nord, pour faire, comme je l'ai déjà dit tantôt, la séance de restitution. Et vous avez vu la forte mobilisation des responsables, des femmes, des jeunes, des anciens une salle archi-comble vraiment ce qui nous donne entière satisfaction et conformément aux directives du parti nous avons eu à donner toutes les indications pouvant permettre aux militants et aux responsables de préparer sereinement la vante des cartes. La réunion était prévue pour une courte durée mais vous avez vu que ça a tiré à longueur vu l'importance de l'ordre du jour parce que comme on l'a dit le PDS est un grand parti et reste le premier parti du Sénégal vraiment nous sommes là très contents très satisfaits de la journée d'aujourd'hui qui marque en tout cas une étape importante dans l'évolution du Parti démocratique sénégalais nous nous lançons vers la vente des cartes vers le renouvellement des instances Et après, nous allons nu battre tout simplement pour préparer les prochaines séances électorales et surtout installer notre candidat Karim Meïssa Wade à la magistrature suprême sous les conseils éclairés de notre guide, le président Ablaye Wade. Voilà en quelque sorte résumé l'objectif de la séance d'aujourd'hui.